asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi commune bu Koul ak mbooleem dëkk yi ko wër xibaar bii yéenay borom ATG l'association ànd taxawu gox bi de la commune de Koul ci njiitul seen président Gora Thiaw ak mbooleem ñi mu àndal ñoo am mbégte mu yaa di leen yëgal te di leen woo ci seen conférence religieuse bi ñu fas yéene amal ñu jàpp ko samedi le 8 avril 2023 ca place publique bu Touba Kan bés bi nag dañu koo dara jaale Serigne Fallou Mbacke ibnu Serigne Abdou Latif Mbacke waa association ànd taxawu gox bi nag di ci woo monsieur le maire la commune de Koul El Hadji Modou Fall monsieur Diop Sy maire de ak honorable député Assane Diop di ci woo monsieur le sous-préfet de Mérina Dakhar di ci de la brigade gendarmerie de Ngaye Mékhé woo monsieur ay meexu ñi ngi responsable politique APR maire de commune de Mérina Ndakhar di ci woo mbooleem maire yi nekk ci gox yi wër commune bu Koul waaye di ci woo mbooleem chef de village deux cent commune de Koul di ci woo mbokk yi xarit yi soppe yi wala rëy ak am di jàmm yi bàyyi wu ñu kenn bàyyi wu ñu fenn programme bi nag nii lay demee neuf heures mise en place des invités dix heures quatorze heures le thème développement et religion commission religieuse bu association oustaz Khadim Gueye bu rajo Dunia ak Serigne Cheikh Kane Touba Kane kon nag bés baa ngi noonu conférence religieuse de l' association ànd taxaw gox bi de commune de Koul lay doon le 8 avril ca place publique bu Touba waa ATG di ko yëgal te di ci sàkku teewaayu ñëpp bàyyiwuñu kenn ñu fenn